Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ mën munti door nga mën ko ñëk am bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ ti dool nga mën ko njëkk am jërëjëf saas kii nee na étudiant la ngay jàng mais xelam neexul euh, waaw xel nag ñaareel bokk na ci li koy naqaril dana nekk dana topp famille dana nekk lu la gaar ñaareel la nga doon jàng di xam dem ba ci kanam sa xel mi hubu da ngay contrôler sa bopp ndax noo def ak mooy yàlla ndax boo bëggee di jàng te foo toll mooy yàlla yore ay coro di def lu defawut su boobaa sa mi dafay mujj tëju xam-xam leer la te mooy yàlla lëndëm la leer ak lëndëm mënuñoo ànd imaamu Shafii ba muy jàng ci imaamu Wakiya yàlla dogal muy doxal ak ndaw rek lu ko Wakiya jàngal mu fàtte ko bind bu mu bind balaa jëlaat beneen fàtte ko mu tawaat jëmee ca moom tawaat mu Wakiya ne ko bàyyil mooy yàlla te sol mbubbam ragal yàlla soo ko defee yàlla xamal la xam-xam bu yéeme mu tax mu ne shakawtu ila Wakiya سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي kon moom na seet boppam su fekkee dafa sàgg ni julli ah, na góorgóorlu mu dem di julli ji yaa jël engagement su fekkee da nga da sàggane topp say waajur yaa jëloon engagement ndax yani ne la ngay fexe dem góorgóorlu jëmee ci ñoom su fekkee da nga doon mooy yàlla ci fen ci jëw ci tëddee ay jigéen ak ànd ak ñoom ak lëngoo bàyyi loola lépp nga tuub ko mën a dellu ci yàlla xam-xam leer la mooy yàlla lëndëm la leer ak lëndëm nag mënuñoo ànd da ngay dàqee leer gi ci lëndëm gi bu loolu xamul rek sa xel dana gën a nax sa xel tamit dana gën a gën a su fekkee ne nag yépp moo wax defoo ci dara wax dëgg yàlla xelam judduwaale la rek ni dana doon xelam baayam ma ci naqari wala mu doon xelam yaayam ma ci daqari kon demal seeti rek euh, ku ilimaan ji la gën a jege nga tawat ko ko dana la mën a wax bindal kiis kiis nag baax na lool dana nàmm xel bokkoon na ci kiis yi Cheikh Omarul Fuuti yu joxe te kiis gu baax a baax la boo demee ca Ala Imran aaya bi ñu tuddee shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti laa ilaha illa huwa al asrul hakim nga bind ko suba teelee ajjuma juróom-ñeenti yoon ngay bind aaya jooju ma tudd gannaaw bi nga ko ubbee bisimilahi rahmaani rahim pare nga tëjee ko salaatu a nabi su ko defee nag naan ci juróom-ñaari àjjuma yu toftaloo gul tëbal benn boo tëbal yàqu na waaye na nga ciy def leb soo koy naan nag li gën bala lekk bala nga xëy naan nga naan ko fekk lekk goo fekk naan aguloo Cheikh Omar Fouti yu moo daan joxe kiis googu lu xel tëju tëju bu dul mooy yàlla ko tëj su ko nit ki naanee xelam mi dana ubbeeku incha allahu bi hawlillahi wa quwwatihi Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum.